ñu ngi bàyyi xel liggéey bi ñu ngi koy yittewoo kon sëñ bi noonu leen bàyyi xel noonu leen yittewoo moo tax fu mu fu mu toll ak lu muy nekk di cee yëgoog bokki taalibe yëpp di leen gën a yaasalal ay cantam ak ngërëmam ci xam cofeelu bokki taalibe yëpp jëmee ci jëmmam jooje ak yéene bokki taalibe yi ci ànd ak moom liggéeyal sëriñ tubaab bi ak yéene gu ko bokki yëpp yéene ndam tàmbalee ci bokki boppam yi ak bokki taalibe yëpp fu ñu mën a nekk moo tax sëñ Muntaxa waxtu mu nekk daf ñuy wax ne nan koy santal bokki boppam yi waaye nan ko santal taalibe sëñ Tuubaa yëpp ndax xam na seen cofeel ci moom xam na seen yéene ci moom xam na nuñ koy yéenee ndam ci liggéey bi sëñ Tuubaa bi te wolof nee na mbëggeel yéeg a koy fay kon nañ xam ne nañ ko jàpp ci seen xol ak Pastef bi ñu ànd moom de sëñ Muntaxa xam na ko bu baax a baax denc na ko ci xolam noonu la leen ko ëmbalee noonu la leen ko téyelee xanaa da ci ba dolli ñaari kàddoom yooyu rek di wax ne maa ngi leen di wéttilikoo dale di leen dalale am xel waaye maa ngi leen di soññee sama bopp di fettali sama laxasaay fas yéene gën a ànd ak yéen liggéey sëñ Tuubaa bi ndax jekk noonu la koy waxee fu mu fi mën a nekk jotaay yu mën a nekk mu mel ne nag kon sëñ bi egg si na njaareem yoonu njaareem bi nag bi muy ñëw daa waxoon ne nan jot li bokki taalibe bi am nuyoo mu mel na sax loolu waroon na ko def laata muy jóg xataa yi ñu nekkoon ak palaxaan yu demee noonu moo tax jot léeguñu woon nuyoom yooyu ne woon bu ko jotalee bokki taali taalibe yi nuyoom boobu nag ak fetli gi muy fetli ak ñoom kóllëre ak Sëriñ Tuubaa gi ak fas yéen gi mu fas yéenee ànd ak bokki taalibe bi liggéey bi Sëriñ Tuubaa bi kon diggante bu ne fam ci toll la cay yëg-yëgam dana ko dana ci yëgal taalibe yi lañ ca mën a yëg moo waxoon ne ta fan nag li doon yëg-yëgam mu mel ne daay ñëw njaareem ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa lépp lu muy def jëmmi ñëwee njaareem ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa nag daa ñëw ngir dundal dundalal Sëriñ Tuubaa bëgg dund ci Sëriñ tubaa bëgg ci dundal taalibe yëpp itam parce que bu wax ci waxee fu gën a jege dañ naan gën a nampal taalibe yi soowam Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne ci la ñuy wéree ci la ñuy muccee ci la yi dolli ko kon yoonu njaareem wi yëg-yëg la yëg-yëg boobu dafa waxoon ne ñëwut ngir daayira yi mbooloo yu daje kon bokki taari bi dañoo bëgg xamal ne ku yorub daayira te bëgg koo jébbale si da ngay mujjandi ko ba sëriñ bi dellu Tuubaa bu dellu Tuubaa ba toog ba wax programme ni muy tëddee danañ ko leeralaat xam na ne bis sàngam da tàmbalee ko andib daayira ba ñëwee da nga ko mën a jébbale waaye fekk dégguñu loolu nañu yor daayira yëpp nañ toog déglu ndigal loolu mu ne woon kon njaareem jéggal na daayira yëpp bañ dellu Tuubaa di wéyal liggéey booba jéggal na itam ñëpp ñoo xam ne dañoo bëggoon a ñëw di ay mbooloo yu ko bëgg a siyaare njaareem mu ne woon yoon wi ni ma ko waxee léegi yoon wi yëg-yëg la yëg-yëg nag bu nekkee ca biiru lu bu nekkee ca jàkkaam fu mën a nekk la muy yëg ci sëñ bi ma ngi koy yëg ma ngi nu cee yëgaale nu itam kon taalibe fu nekk nu itam yëg-yëgu sëñ boobu ci la ñuy jéem a branché suñuy xol nekk ci yëg-yëgam booba nu ànd moom di yëg sëriñ bi kon mel ne mbooloo yi ak raj-rajloo bi ak jaxasoo bi bu daa bëggoon ñu ne ci dégg duñu weesu lii loolu nag dafa am loo xam ne neexuta kenn mënu ko expliquer ndax yég yég la ni ma ko waxee waaye man yëgoon naa ci ay waxam daaw ne dafa meloon ni ku ñëw njaareem yëg ne sëñ baa ngi waaj ngir dem Touba duggi këru ajanam xam nga bis ñi fi nekkoon ak sëriñ bi ku ci yëgoon ne sëñ baa ngi yaaga dem waaj a dem Touba dootoo am dootoo yëngutu dootoo noyyi dootoo raf yëg ne sëñ baa ngi bëgg a jóge njaareem dem Touba ku ko ci yëgoon dana am nooy dundee dana am nooy yëgee te sëñ bi ci boppam man tiim naa mbindum sëñ Mat Lamine Diop Dagana sëñ Mat Lamine Diop di wax ne sëñ bi ci ñetti fanam yooyu ñeent ya jëmmi bis yi sax jàppoon naa ko rëcc na ma waaye julli yi mujj julli si jumaa ji ci jàkka ji bi mu génnee moom sëñ Mat Lamine Diop tari loo na ko bopp baqara mu teri ko ba aaya ju ci nekk mu wax ko ne ko taxawal alilaa sal mu tàqin ne ko taxawal ko mu taxaw mu leeral ñoo ñu doon al mu takkoon tegaat demaat ba ca kanam mu leeral leeralaat munaafiqoon yi demaat ba ca kanam mu leeralaat kaafiroon yi ba leeral ko ci masque yi mel ni mu takkoon ñoom masque yat lañ tàlli nañ xam nañ seen mbir leer na munaafiqoon yi nag ñooy masque lonk goo xam ne boo ko tàllalee mën naa tàlli de bokk ci mun a euh, mu fi lawoon mu tàqoon boo ko jàllalee mën naa banku bokk ci kaafiroon daal na masque ak néeg gi nag moom leer na moom itam mbirum yéeme kon mën naa fi xool seen mbir leeru waaye waaye ci biir wax ji li ma bëgg a wax rek sëñ bi boole woon na ca ne nañ digal njaboot gi ñu wàññi jàllantu bi wàññi dikk beeg dem bi wàññi coow li kon sëñ bi moom wonoon na ne mën nañoo yëg ne am na luy bëgg a xew waaye sëñ bi waxee sëñ Mame Lamine Diop wala ci am nee na sëñ bi nee na nañu wax njaboot gi nañu wàññi jàllantu bi nañu wàññi dem beeg dikk bi nañu wàññi coow li dafa mel ne sëñ Mountakha yëg-yëg amaat moom la bëgg nu delloo ci waat ku nekk ci wàññi jàllantu bi wàññi coow li wàññi bi lan la muy nee dañ fiy nekk ba mel na sëñ bi day waaj war a dem këram Tuuba këru àjjanaam nu ànd ak moom nag ci wàccaayam boobu gunge ko ba mu dugg kër gu àjjanaam te noonu la ko leerale woon daaw noonu la ko leer daaw jéeg gunge ko ba mu dugg kër nam fa ko mujjële woon mooy bisub Ashrin Muharram bi mu fanaan ko ci kër Sëñ Tuubaa ga Hizbut Tarqiyyah jàngal ko fa ñu fanaan fa ba fajar ñu ànd ba ca barab ba moom loolu la firee woon ñu nekk njaarim ci wàccaay wi ànd ak moom ci yoon wi ba ànd ak moom ba mu kër gu àjjanaam dafa mel ne loolu rek la bëgg ñu delluwaat ci xel kon na ko sëñ Tuubaa digle woon noonu la ko sëñ Muntaxaa digle waat nañ bàyyi yëngatu bi bàyyi baagante bi bàyyi coow li amuk dal parce que yéen dund sëñ bi dundal la sëñ bi dénkaane woon kon daayira yi nañ ko nekk njaareem Touba ba mu jógee njaareem ba dellu Touba mbooloo yi nañ ko nekk Touba ba mu jógee njaareem ba dellu Touba nu wëyal liggéey bi nag baat boobu lay wax wëyal liggéey bi xam na ne ànd ak taalibe yi liggéeyal sëñ Touba rek mooy liggéey bi te boobaa taalibe yi dañuy indi seen la ñu am di ko jox mu leen ko defal liggéey bi sëñ Touba bi na koy waxee rek liggéey baa ngi fi nekkal nu fi sëñ Touba na ko fi daara jàng fa ak yónni demee yëpp loolu mooy liggéey bi fop taali bi nekk loo am da nga am yéene yi ko mu defal ko ci liggéey bi moom kon loolu mooy liggéey bi buñ jógee njaaram nag mel ne danoo jege sëñ bi muy waaj nu dal ne dégg ba sëñ bi jóg nu gunge ko ba mu àgg Touba nag ci kër sëñ Touba ga ba ancien Muharram ñu gunge ko ba mu dugg kër ko àjjanaam nu dellu ci liggéey bi mu dénk noonu la ko sëñ mu tax a dénk noonu la bëggee ñu dégg ko ni noonu bëggee ñu duddee ko ni loolu la waxoon ne nañ ko jottali ñëpp kon ku amub daayira wala nga bëgg a siyaare wala nga soxla sëñ Muntaxa muñal ko bañ dellu Touba ba nga xam ne weesu nañ bisub màggal gu njëkk boobaa ku bëgg ñëw Touba nga ñëw danañ jox danañ jox na muy doxee bu boobaa danañ ko leeral ñëpp ñoo xam ne nii lay doxee boobaa ñu xamandoo ko loolu la waxoon nañ ko ci nañ ko ko jokkoo bokki taalibe yi